Alaaji Malick euh, ñu dem ci l'observateur li mu xëyee tey jile euh, ci àllarba bi ci xët wu njëkk wi l'observateur gis ngeen audit ARMP yi rapport Cour des comptes ak IGE euh, vol en régime noonu la ko tuddee la culture d'impunité face aux malversations persistantes maanaam ñi ñu dénk alalu réew mi dañuy faral di ko luubal te daanaka dara du leen ci fekk Aminata ture moom nee na dafa bëgg a proposer benn loi bu ñuy xoolaat mission bu inspection générale d'État muy IGE sénégalais ak bien public ñu def l'observateur def benn diagnostic d'un rapport malsain maanaam sénégalais daal nga dénk ko alalu réew mi néew na ñu jaarale ko yoon lecture croisée du psychologue Serigne Mor Mbaye et du professeur Massamba Gueye muy ab jàngat bu ñu def ci biir l'observateur l'observateur ñëw tamit ci motion de censure ak garde à vue député pur mortal combat à l'hémicycle noonu la ko tuddee motion de censure ba sous euh, toutes ses coutures ak leneen ce que Mamadou Niang et Massata Samb ont dit aux enquêteurs de la DIC ñoom ñi ñu ne ñoom ñoo euh, song Ami Ndiaye ñiibi ba indil ko ay euh, gàllankoor l'observateur ñëw tamit ci ap dossier ab enquête ci lourdeur ci régime juridique maanaam ci wàllum yoon impossible héritage des personnes disparues et l'équation du remariage des épouse ñi nga xamante ni euh, seen i borom kër danoo réer mërite mënaguñoo euh, euh, mënaguñoo sëyaat wala dara ñi nga xamante ni seen mba mbokk dafa réer dafaaw ñu xaar fukki at laata ñuy wax ni dafa faatu muy nekk ay mbir yu diis yu tiis itamit Louga kooku benn waay la ñu ne dafa màndi waaye daal mu doon jéem a teg loxo beneen xale bu jigéen ki nga xam ne moom mooy ki muy àndal taxaw ci la ko gaañee ci put bi c'est à ci page 12 bu journal bi mondial euh, Qatar 2022 demi final contre la France de Sénégalais racontent le Maroc euh, euh, Maroc Sénégal France tey jile lay doon bu 19h jotee ñu jàll ci record ak li mu xëyee tey jile ci xëtu njëkk bi record tey. gis ngeen ko euh, prime ci mondial bi les fédéraux s'entre-déchirent euh, encore une fois c'était le cas ci CAN bi mondial bi tamit ak nataalu ñi nga xam ne ñoo bokk ci fédération bi li ñu doon wax sànq muy euh, match France Maroc kan moo ci war a dem final ab laaj la bu ñu samp Argentine Croatie démb ñetti bal ci dara Messi éteint Modric les lions de l'Atlas gis ngeen ko Hakimi en mode patron tout ça ngeen mën koo liir ci journal Record yeneen xibaar itam ci l'Observateur léegi dañuy jàll ci météo express ñu ànd ceeg Oumy Samb home.